الله اكبر ولله الحمد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بك جلدي نيغي سات سونو بروم تبارك وتعالى كي اترفتال ديبي تي نيوم waye ci ay xéewalam yoo xam ni kenn ci ñun mënu koo tàkk yàlla bi nga xam ni sant ñeel na ko ci jamono ju nekk rawatina ci jamono yii ñu tomb nga xam ay jamono yu topp yàlla la ay jamono yu sant yàlla la waaye ay jamono yu tudd yàlla la allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walilahi alhamd ñu ngi jullee ko seen mag ci sunu yonantu ba sunu soppe ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko yónni mu nekk yërmande bu ñeel mboolem bi ndax yàlla xéewal bu ci yàlla nekk ci moom nekk ci waa xaaxaar ak xitaab yi aw ak mbokk mboolem ko topp seen njaboot si géej bokk jullit bokk na ci bis yi gën a màgg ci àdduna bi fa yàlla subhaanahu wa taala bis tey jii muy bisu tabaski bis la boo xam ni jullit ñi dañuy feeñal li nga xam ne mooy mbégte koo xool ci kanam bis dëgg rek loola nag ñu ngi ko jël ci seen ak yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi Moussa la ñëw da feeñal mbégte di ci def effort bu baax waaye di soñu jullit ñi ñu koy feeñal kon bisu mbégte la ndax li nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala defal nañu bis la it boo ni occasion la woon ci jullit ñi wane seen bennoo waaye nag malheureusement tey li nga xam ni moo dal jullit ñi ci teqali ci bu wote lu na ñak ndax bu ñu tampon orientation ak jàngale bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lu aju ci wéer ak muy bëgg-bëgg rek mooy benno jaamu yàlla ya subhanahu wa taala jàpp nañ ni mënoon nañoo dal ci lu bari eh, comme gis ci ci tey ndax amoon nañ occasion boo xam ni ñun ñu nit ñi waruñu ko dal waaye alhamdulilah rabbil alamin gisul bennoo la ndax ñun lépp tey ci àdduna bi muy ci Afrique bi ci Europe bi ci Asie bi ci Amérique tey lii la ñuy feete li nga xam ne moom mooy tabaski kon benn bennoo la ngir bind gis nga loo xam ne gisub sant yàlla la comme ni ko waxee ndax suñu borom tabaraka wa taala nee na xeet mu sa jaamu ne defaloon naa leen ay xeeti jaamu yàlla wala ay xeeti feet yoo xam ne bu dellu see dañ ciy tudd yàlla lu bari moo tax bis bi bis tudd yàlla lu baree bare bare bare waxoon nañ ko ci bi nga xamee weer wi na ñu ne zikr dafa am yoo xam mutlaqa am yoo xam ne yi nga xam dañ boyal ba weer wi fukki fan ba kara ci jeex da ngay tudd yàlla ci kër ci tool ci marché yi comme ni ko kiram doon defe su ko defee ko jàngalam yonente alayhi salaatu wasalaam nga ci arafa ba ñetti fan yi jamono ngay bari subhanahu wa taala allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah allahu akbar wa lillahi alhamd wala si la boo ko mën a def wala nga ni allah subhanallah walhamdulillah di tudd yàlla di ko màggal wa baax ndax bis bii kat tudd yàlla war na cee gis loolu sant ko delloo ko nit ko ci xéewal yu màgg yi nga xam ne defal nañ ko mu borom bi tabaraka taala ñu tudd yàlla ci ay xéewalam nag yu bari yoo xam ne defal nañ ko rawatina ci juri kër gi nga xam ni yàlla mooñ ko tàggatal bu ko tàggatuluñu woon may ñu xel am nu rocc ci ñun ci ñoom duñ leen mën a noot ba mën leen a xéewaloo ci bis bu tey bii ak bis bi mel kon yàlla moom lay mooy buur bi nga xam ne kenn la kon ñun ñëpp nañu wommat nangul ko déggal ko sax ci li nga xam ne mooy ay santaane waaye bàyyi li xam ne mooy ay tere ba mu jullit bisub Tabaski di bis bii tey bis boo xam ne nii bari na lu muy jàng waaye bokk na ci li ci gën a ak nangu koo xam ni ab jaam nangu loolu ko boromam tabaaraka wa taala mu yont yàlla Ibrahima di imaamul muwahhidiin ak doomam ja di Ismaayil alayhim assalaam ba leen borom wa taala sante ak nañu xale bi sama dama demee yëpp da ca mën a jóge a fës mooy ab jaam boo xam ni joxoon na boppam boromam nangul ko waaye wommatu ci li nga xam ni moom mooy ay santaane def nag ay sacrifice loolu mooy wane ni ab jullit ak dundam fii ci àdduna ay sacrifice la ko war a feesal lépp ngir liggéeyal ci kaw suuf lépp taxawu diinal ji ci kaw suuf waaye lépp ngir fexe am ngërëmu borom bi tabaraka wa taala fii ci kaw suuf ndax yonent boobu day def na ko waaye suñu yonent alayhi salaatu wasalaam roy na ko suñu borom roy looñu ko te loolu mooy la gën a des ci li waral li nga xam mooy bis bi bisu kër mbokk yi bisu tudd yéene ko ci lépp mbëggeel koo xam ni duñ ko bëgg la neen loolu ku ci nekk rek yaa ci xool sa diggante sa borom ndax muy nekk sa xol la waaye boo ko jëfee rek ñu xam ni yow kat nga sa borom te bëgg gi nga bëgg sa borom bëgg woo ko la neen wala keneen yi lu ci jàngal ñu ci jàpp tey sa diine baax a baax a baax te yëpp nii suñu borom da lay natt na nga waxoon ci alquran ku leen yaakaar da ngeen naan gëm nañ gëm nañ yàlla rek wax di jeex duñ la natt ci sa dund natt la sa am-am natt la sa bakkan natt la rek sa diine loolu nag la muy laaj mooy nga am ak muñ te yëg ni ki sa amal affaire mooy sa borom tabaraka wa taala moo la sant moo lay fay boo sóoraalee nit da nga yëg ni yaa ngi ci erreur nit kooku amaana sax àdduna bii mu am lu mu tëddee ko defal loxo te sikk amu ci kon li nga xam ne moo aju sa diine am ci muñ am ci dëgër am ak taxawu xam ni ni ko imam Malik doon waxee rahmatullahi alayhi naan foofu jullit nga xam ni sa diine mooy sa xam-xam bi ngay sàkk mooy sa lépp nga xool ci ki nga koy jëlee mooy lan li nga war a jaamoo borom bi tabaraka wa taala muy wàllu pas-pas di lépp la jiitu loolu nit ñi warul di ko làmbat wala di ci woyabal pas-pas kenn waru ci woyabal wala di ko jëlee ci n'importe qui ndax pas-pas muy base lépp bu ni lépp baax waaye boo xasee ba yàq yàq te nag maanaam def ay erreur ci wàllu pas-pas dem ba dajeeg sa borom ba yàggee maanaam amul pour sens bu gën fàtte bu dee yeneen am na yeneen yu ko mën a complet moo tax topp borom bi tabaaraka wa taala xool suñu pas-pas mu jaral ñu lu ne loolu wareef la ci képp kenn kon bisu muñ la <laughs> ndax la koy waral moy suñu mam ibrahim alayhi salam ak doom bi ñu amé 80 vingt ans yàlla wërsëgal ko ba ben bant juróom ñet fukki at xala bi dem ba mag tollu fo xam and ak mom mu koy ñeewant di ko bëgg ko bi ñëpp bu ko yalla denké doom fu toll ak kefel bi ci seen digël yalla nattu ko di ko rendee sa doom dafa muñ doom ji dafa muñ nangu digël bu kon lolu bokk na ci li nga xamni lu ñuy jàngate la ci bis bii mbokk jullit yi waaye it topp suñuy ñaari waajur ginnaaw ba ñu jiitalee topp yàlla subhaanahu wa taala alquran fu mu ko waxee rek ay waajur la ci teg jaamu yàlla bu ko bokkaale kenn rafetalal jëme ci say ñaari waajur loolu lu ñu jàngale ci bis bi ki nga xam ne mooy Ismaïl alayhi salaam dafa topp ndigalu waajuram pour mën a def sacrifice boobu loolu jural ñu tey alhamdulilah ñu ñëpp ñu toog ci bërëb di màggal borom bi di xéewu sant borom bi lépp nekkaat ay jaraanga lépp nag taxaw yiw ñeel ñu ñun ñi nga xam ne ñooy jaami yàlla bu lii amuloon ci ñoom amaana lii du am ci ñun kon nag ñëpp ñi li ñu war a gën a jàngat ci bis bi loolu ci la bokk comme suñu wayjur euh, teral leen jiital leen ci képp mën a doon ginnaaw yàlla ko gën daal loolu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax baax ci ñoom waaye it góorgóorlu ci wàllu ixlaas sellal suñu jaamu yàlla yi dañ koy sellal ragal yàlla na am ci ñun li ñuy def yàlla rek tax. comme ni ma ko waxee woon bul sóoraale nit sa digganteeg sa borom rek moo am solo ci li ngay def kon sellal googu lu jara a bàyyi xel la lépp loo xam ne tal la wala lu mën a yàq ak jëf lu ñu war a sore la loolu lu ñu mën a jàngat la ci bis bi ndax suñu borom tabaraka taala nee na man day gàtt yi nga xam ne sant naa leen ngeen koy rendi man ndawal ga soxla moo lu mu bari bari bari deret yi lu mu bari bari soxla moo bu fekkee àndut ak ragal yàlla bu fekkee àndut ak sellal waaye nag bu baree alhamdulilah ànd ak sellal baax na waaye bu néewee la ci am solo rek yàlla ne lam ci solo lam ci soxla walakin yanaalu taqwa minkum ragal yàlla gi rek la ci yàlla soxla kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax mbokk yi dëgg yàlla bis bi day war a it jamono li mu jege maanaam jamono bi ni mu gaawee li ñuy war a nit rek taxaw ci farataam taxaw ci ay pour projet yi jeex naa mën na ñàkk de waaye nag jaamu yàlla jiitu sa diggante ak sa borom sell li nga war a xam sa diine nga xam ko jëfe ko na jiitu da leen lu ciy topp toog cee topp ndax jamono bi dafa gaaw te ñi ngi wax àllaaxira wax xiyaamu saa waaye ku faatu rek sa sa saa loolu nag ci bàyyi xel góorgóorlu ci bu baax baax a baax ni ki doon it dañuy wan ni li ñu tudd dawaamul xaal ñu naan mu xaal naa am ñenn mbir sax éternellement loolu mustahil du jamono dara sax dara de dara mu yàgg mu jugee loolu li koy wane bari na ci bu ñu xoolee année bii passé bari na ñoo xam ne suñu bokk jullit lañu bari ba ci bërëb bii ñu toog ñu ne ñoom ñoo passé la woon fiet bi ci bis bii ñu nekkoon ñu am taxawaay tey ñu ngi nii fetal waaye ñun jiitu yàlla yàlla yërëm leen. Mm. yàlla yàlla déggal leen yàlla yàlla xaaral leen am noonu it ci heure bii amoon nañ benn président. boo xam ne moo doon gouverneur di jiite réew mi ànd ak gouvernement waaye soog na suñu borom mu demal leen ñoom ñëpp indi ñeneen ñu bees bokkul bi leen ku nekk nag yàlla moom lay waxoon ci ay bii yéew yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ragal leen seen borom dëgg dëgg yàlla bi mu mu mu wàccee saxaaba yi dañoo def jël sallallahu alayhi wa sallam yàlla dañu wax xàqatu baax bi dëgg dëgg ragal yàlla ndax ñoom lu mu saxaw dañuy tuumaal seen bopp di loolu continué ñooñu ay jullit xaqam ñu jar a roy dañuy tuumaal seen bopp jëm ak saxaaba yu xoolal fi tolloon fu leen yonente bi woo ci jihaad sacrifice boo xam ne lislaam aajowoon na ko rek du joxe ko ci seen alal ci seen bakkan ci seen lépp ànd bi loolu wàccee dañ dañ yonente bi yàlla da leen da wax ñu ragal bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ax kay waaye sunu borom tabaraka wa taala ñu jublu ci dëgg dëgg ragal mooy bu ci nekk def sa kéem lay kàttan ci ragal gis nga ba wàllu bokkaale wàccee yi dañoo dem ni kan ci ñun moo dul bokkale yàlla gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal leen firil leen xamal leen ne lu ñu lii la kon mbokk jullit yi euh, loolu ñu xam ko bu baax te yëg ni li am solo mooy ngay wuyoo ab jullit ndax loolu la la yàlla tudde walladi sammaakumul muslimina min qabl wa fi haada liyakuna rasulu alaykum shahida ab jullit la leen yàlla tudde moo taxit mu ni wala tamutunna illa wa antum muslimun fexe ba booy ñii ci sa borom al islam la nekk ci yow yeneen tur yeeg yeneen considération ñoo ko amal bu àndee man al islam alhamdulilah rabbil alamin am solo rek mooy ñëpp ñu ay jullit lañ te tur boobu bu fekkoon moo nekk yu baree baree bari gëm naa ni lu yegg fii wala lu ñu mel ba ko jëlee ñu yegg nii dafa war ñu dox ñun ñëpp pour xool vérifier suñu bopp ndax ragal yàlla gi yàlla di santaane jamono ji nekk nga xam ne maqsad bu mag la ci jubluwaayu lislaam yi ci njàngaleem ak njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu wa salaam rawatina ba ci ji war nañu ñëpp ñu dox pour jëm koo jëmmal vérifier ko suñu bopp loolu nag day làmboo ay mbir ba ca njëkk mooy ku ci nekk ci góor góorgóorlu ci wàllu wéetal borom bi tabaaraka wéetal borom bi tabaaraka wa taala ci ay turam yu mag te ay melokaanam yu kawe waaye ci jaamu yi nga xam ne moom lay jaamu yàlla subhaanahu yonent bi saa sallam képp koo xam ne faatu wuy ji sa borom te daaw bokkaale yàlla bàkkaar boo mën a def di nga def ànd amaana sax doo jaar feneen sax aljana nga jëm direct waaye boo bokkaale yàlla loo mën a def ci lu baax ak lu mu rëy rëy rëy rëy rëy da ngay di kooku amul tawfiq mujj mooy lépp day nekk xabaar mansuura bugg rek la koy la koy jël kon wéetal yàlla subhanahu wa lu ñu war a jàngat la lu ñu war a xam la lu ñu war a jëfe la suñu biir suñu société waaye suñu biir kër suñu diggante ak suñuy am di jàmm ak suñuy mbokk ñu ñëpp ñu wéetal borom bi tabaraka wa taala li ki noonu ñu fas ni njariñ ak lor du jóge ci kenn ku yàlla loolu li ko jàngal bari événement yi passe di élection yi ñu ñëpp gis nañ la ko ji ak li ci xew ak tendance ak wax yi waaw bu fekkoon mbir mi ci loxo nit la nekk ñii ko yor tey duñ ko yor waaye gëm yàlla wëkkilu ci yàlla ni yàlla rek mooy jariñe yàlla rek mooy lora loola nit lu mu war a fas la waaye taxaw la waaye it lépp loo xam ni ak njabar la ak buxaaba la wala di jiñ ci lu dul yàlla subhaanahu wa taala loolu léeg-léeg yàlla natt la waaye it xool sa ngëm-ngëm fu mu toll bu ko defee nag nga xam ne am na yoo xam ni day yàq diine nekk na loo xam ne borom bi tabaraka wa gërëmu ko te njibaraat Euh, ñoom buxaabaat ak ak yëpp ci lañ bokk ndax yàlla nee na ku yàlla yàlla araamal araamal na la li nga xam ne mooy aljana maanaam dafa dugg dëkkuwaay ñi nga xam ne ay kontaan la ci kenn li ki xam ne mooy ay mooy yàlla lu feeñ ak lu nëbbu rafetal suñuy jikko ci wax ak ci jëf ndax kat jikko ju ñaaw ak li nga xam ne mooy ay bàkkaar ay mooy yàlla dafa nekk yoo xam ne ay multikat ma dafa mën a yàqal doomu aadama ci lu bare bare bare moo tax yàlla di ñu nettali ci ñoo xam ne jaaroon ci ay ay ak seenu nit yàlla ni sababu mooy yàlla def ak bàkkaar la yàlla bëggal leen ak xeetu bëggal yu wuutee wuute moo tax ma ne fa kullan axas ci ñoom nit yooyu ci jiitoon yalla bugal na la ci bok bakkar yu bari ya nga def fa minhum man arsalna alayhi hasiban amna ci ño xamni sunu baraka tabaraka wa taala limu mu ci ñom moy ngalaw te moy at di nitu lóot alayhi salaam yalla lóot aw nitam bañ ko wedde taxaw ni man na minna quwwa ñu jappu ñu ëpp doole ñu ëpp katam di puukarewu di rëy ci kaw suuf suñu borom tabaaraka wa taala nee na ngelaw la leen envoyé ngelaw ngelaw lu sedd buy waaw raaxale seen dëkkuwaay ya jël seen garab ya bu nekk même dëkkuwaay wala garab yi sax da koy daaneel ba li féete woon suuf féete ñoom nit nga gis koo xam ne borom bi day jékki-jékki rek mel lu xaw a seey lépp di ay xeetu mbugal yoo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala mbugal na leen li ko war a wax mooy bàkkaar yi nga xam ne doon am ñoo xam ni xaaju la leen suñu borom tabaraka wa taala mbugale te mooy nitu samut nitu yonent yàlla saalex di samut yiwu samut ñoom it ba yàlla yiw na yonent ba ci ñoom yonent bi woo leen ne kat ñëw leen ñu jaamu yàlla daf ko bokkaale ak leen loolu rek laa leen def daal di ñu rëy leen ci kaw suuf weddi ñu laaj kéemtaan laaj ko yonent bi mooy jëlem bi jëlem ko génn ca doj wa ñu wa ñu ne bu ñu ñu gëm yonente ba jox leen li nga xam ne mooy kéemtaan la ñu gën a rëy rëy ci kaw suuf topp seen bànneex bakkan suñu borom fa mu mujjee ak ñoom mooy ak xaaj la yàlla yebal ci ñoom am na ñun xaaj ko am na ñu ngi jógee ci Jibril alayhi salaam ak yuux la boo xam ne da koy yoxam ngir benn boo xam ne ñun ñëpp dañoo tiit mu laal seen xol ñu faatu faatu boo xam ne du metti ni na ñoo xam ni yàlla dafa xar suuf dugal ci biir ku ci mel ni xaaruun ba mu bewee mooy borom bi tabaaraka wa taala di dox ci kaw suuf di rëy rëylu yëpp di am nay pouvoir am na alal suñu borom moo ko bëggee bëggal dafa xam suuf rek dugal ci biir te lan moo bi bari moo tax mu ne fa xasaba allahu bihi wa leen a labal ci mel ni Firawn ak euh, ministre boobu de Haamaan ak seen i junóot même ba ci xaw mu dañu wedde Toofaan yàlla labal leen kon loolu lépp ay bàkkaar moo ko moo tax bokk jullit yi ah nañu may suñu képp laay tàttal ab jullit nag mënul ñàkk mu juum mënul ñàkk mu def ay erreur waaye fi xonut loo def na nekk loo xam ne doo ko tay juum dara te boo paree nga jégalu ko te fas ko sori dañ ko defaat ba faw li ngi noonu it mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu salaam ci xadiisu Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar mooy nettali nee na benn bis yonent bi alayhi salaam da doon ñëw ci ñoom ñoo ko jub ñu ni yaa ma'sharal muhaajiriin yéen boole muhaajiriin muhaajiriin wal ansaar yaa def ni juróom a ngi nii juróomi mbir a ngi nii boo leen am chance yàlla dina leen ko nangoo te it maa ngi ñaan yàlla sax mu leen koy fekk loolu la yaa def ni ak ñaawteef ak def ko ban musul tasaaroo ci ab société ba nit ñi di ko biral di ko fisal lu may feebar te son feebar bu nekk wàcc na ay métti ak jafe-jafe wàcc na ci seen bopp loolu lañ ko xool tey ci suñu réew mi nit ñi dañuy def ay ay ay ñaawteef di ko di nga gis ni def njuumte war suturaal boppam ginnaaw ba ko yàlla suturaalee waaye muy gën di weer ba nit di def lu bon tere yi di ko wane loolu li muy jur rek mooy ay feebar lay tasaare moo tax xool li xew ci ay xeeti feebar ay xeeti virus yoo xam ne mag ñu njëkk ñu xam ñu ko woon te jamono ji mu bari lool kenn xam ñu ko lu ñu nag feebar bu nekk loolu ko waral waaye lu bëree bari ci ay feebar ay bàkkaar moo ko waral nee na yonte bi nii euh, du ñu li nga xam ne mooy ak balance yi rawatina ñu ñu yëngatu ci wàllu commerce lu may suñu borom tabaaraka wa taala wàcce na ci ñi koy def as sinin muy al qaxt muy ak bekkoor ak li nga xam ne mooy téye am ndoxam nit ñi nekk ci jafe ndax adduna bi bi ñu ëpp ci koom-koom adduna boo xam ëpp ci nit ñi ci adduna seen koom-koom ak li leen may existence ci dund ci mbay la jóge ci mbay la léegi nag la gaa yi xaw a développé dem ci wàllu industrie jëfandikoo yeneen xarala yi waaye ba tey li nga xam moom mooy mbay ci adduna bi li seeni xeewal foofu la jóge te nee na ah li nga xam ne moom mooy جاي دي دي مانكل دا ولا خيت كريسي ندخ لو ليغو بارين خيت كريسي ولا خيت ساج ولا خيت نخاتي ولا بوري ولا دال ولا تاي ني جيغو تي والو بيزنس دا فاي ديغ ني تولي موي سونغو الحلال ما حل في اليد فصو اكسبريسيون بريت دنج كو واخ pour en tout cas euh, bëgg da ganal li nga xamni li koy dugg ci ay xewol ak wërsëk ci aduna te loolu dañuy dëgg rek moy am ci niki non yalla ni loolu du yaxoom sax waye nattoo ay buur yoo xam ne yu jeng la ñuy doon kon at yi passé li ñu dund buñ ko xoolee dañuy gis ni njiit loo xam ay njiit yoo xam ne wax dëgg yàlla sonaloon nañ ñu loolu yàlla yàlla bind leen te jubal leen mu ne ñàkk a génne attaque du tasaaroo ci ab dëkk wala ci am réew lu may yàlla tey am dafa azak kon bu am solo waaye xoolal nit ñi niñ ko déglisé baykat bi ñu néew ci ñoom ñoo koy commerçant yi ñu néew ci ñoom ñoo koy borom alal yi ñu néew ci ñoom ñoo ko def borom jur yi ñu néew ci ñoom ñooy génn asaka te wallahi asaka léeg-léeg nit ki damaa yaakaar dafa xamul li mu war a génn lu mu war a waaye yow li ngay am ba suñu borom di la génneel lii nga war a génn boo ko xamoon di nga xam ne li nga génne du symbolique la rek waaye lépp loo xam ne lu manqué alal la wala loo xam lu bari lay bu fekkee xaalis la liquide ñu la 1 million boo am 25 mille nga ci génn. te nag du da ngaa un million wala dix million rek génn ci faaw mu mat at ci yow bu baa sam ba wala nisaab ba day nekk trois cent cinquante mille environ environ bu dee ba mat cinq cent mille nag booy jënd benn douze ci xaalis bu dee jur yi xar yeeg bay nga am quarante doo jënd benn kon bu dee mbay bi faaw nga am ci lu mat ay cinq bërigo wala cinq tonnes moom xawlaanul xawlu bi ci bi ci sàmm te loolu lépp li muy def mooy barkeel sa am-am boo bàyyee di génne bu fekkee ay saako nga natt muy génn saako nga natt na bu fekkee yaa ko arrosé sa bopp fukkeel ba ngay génn waaw fukkeel ba ngay xaaj day génn fukki ba xaajaat yaa ko arrosé sa bopp def say fere fukkeel ba toujours fukkeel ba mooy lan bu dee ay saako la yu mag xool yi fukkeel ba fukkeel ba ngay génn bu dee ay paan paan ba ngay génn xaajaat bu dee ay siwo bu dee potu ndaas moom ngay génn xaajaat loolu lépp boo ko calculé saa dem yoo xam ne au même maanaam lépp a toll amul benn différence loolu nga war koo génne ci asaka bu barkeel sa alal laabal ko yàlla ci yow nga dimbali miskin loolu jàpp naa ni nit ñi desal nañ ko ginnaaw taw li mu mën a rek bokk na ci mooy yàlla téye ay xéwalam téye am loxo mi nga xam ni dafay tukkee ci asamaan moo tax yàlla ne bu duloon bàyyi sax day dem ba benn jamono ndax nit ñi ñu téyee dañ koo joxe bu duloon bàyyi may sax yàlla am loxo moo tax léegi li ka ngay gis am nawet ñëw day taw waaye bu dee ba ñax mi sax ba bàyyi may mën a dund rek yàlla koy ak na kon nañu xoolaat suñu diggante suñu ko ci ñun àq yi xam ni jaamu yàlla yi am nañ ko ci ñoon am ko ci suñu suñu alal nee na it du ñu seen kóllëre seen diggante ak seen borom ak seen ak seen yonent lu may yàlla subhaanahu wa taala nattoo na leen ak noonu boo xam ne xëy na sax ci ñoom lay bokk wala bokk ci ñoom xoolal doon lislaam yi tamit lu tax tey ñu xaw ñoo jekk ba ci biir suñu biir ñun dara waralu ko lu may li dox suñu diggante suñu borom ak suñu yonant ci li nga xam ne moom mooy matal kóllëre matal luñ ko loolu rek moo ko waral moo tax alquran wax na alladina yaquduna ahdallahi min baadi mitaqih wa yaqtauna ma amara allah bihi an yusal lim leen di indi moo tax lu bari ci borom xam dañuy wax ni kóllëre yi ñett la kóllëre bi ci nekk mooy bi nga xam ni suñu borom moo ko fas ci digganteeg mboolem koo xam ne bi daal suñu maam Adama fas ñu jóg yàlla ci te mooy lan mooy ñu yàlla dañ ko bokkaale kenn képp kuy mindaakoon rek pacte boobu dugg ci nga matal ko ak nga ñàkk ko kon tawxiid bi ñu wax ni mooy al asas mooy fondement moo war a jiitu mooy pëlël bu njëkk beneen bi ci des yàlla dafa setal yonente yi te mooy diine diine ñoom ñëpp ñu saxal ko ko buñ ci wuute ñetteel bi mooy kullëre boo xam ne borom xam-xam yi la ko mooy ñu leeral dëgg ba ñu nëbb dëgg tey boo xoolee la yàlla xam doy na ñuy dundee borom xam-xam fii boo xoolee lu bare bari lu dal diine ji du ñu jàngoon ñu bari ci askan wi pare nañ pour jëfe bu fekkoon wax nañ leen dëgg waaye problème bi jullit ñi am tey mooy borom xam-xam yi ñoo borom xam-xam yi ñoo leen du dara léeg-léeg lu may topp bànneexu bakkan moo ñu koy yóbbee loolu yàlla ci sunu borom tabaraka wa taala musal kon mbokk jullit yi loolu ay mbir la yoo xam ni yu jar a bàyyi xel la ci jamono jii nga xam ni ci la ñu topp ci la ñu ci la ñu toll waaye it ñu war a bàyyi xel yaru suñu njaboot ci li nga xam ni mooy sàkku xam-xam ak fexe ñu am pas-pasam ci diine ak jëf-jëf yu baax waaye ak rafet bi nga xam ne moo juddoo ak am ay tekki borom kër bu nekk loolu lu mu njabootam la war na def ndax yaa ko wax naa ni ngay sa bopp di fatal sa bopp sawara na nga yëg ni warul jam ci yow képp kuy sa njaboot sa soxna say doom sa entourage say wëjur doo ci man war nga koo war nga ko def ni ngi noonu jéem a changé nit ñi am na habitude boo xam ne ñu ngi ci ñoom habitude boobu fekk ñu jéem ñu koo changé seen bopp suñu bon taal ko xanaa am na loo xam ne bu ko defal kenn fekk jéemu leen a changé moom bu leen fekk di leen changé moo tax mbokk jullit yi kon dëgg yàlla nga xam ni dafa bokk ci xale suñu borom yàlla dogal mu ngi ci gouvernement boo xam ni bu bees la gouvernement bi nag askan wi yëpp am ay yaakaar yoo xam ne ak nañ ko ci ñoom ginnaaw yàlla subhanahu wa taala waaye ñoom it ba ñëwee léegi wax dëgg yàlla dañuy ñu jot a wane lu dal xel la bokk na ci li nga xam ne jot nañ koo wane ko te matul sax ñetti gis nañ ni jiital nañ diisoo ak waxtaan ak technique yu te loolu bokk jullit lu ama am solo la dina tax société yi xam ni kat li ñu leen digal ci wàllu rupture wala li woon yàlla dogal na ngir commencé am te loolu wax nañ koo yaatal waxtaan ndax léegi nag ñàkk ko waxtaan wala waxtaan moo xam ni xëy na da ngay waxtaan waaye yow ay pexe nga ci jublu loolu moo tax nit ñi di désespéré mais bu ko dëgg lalee ak maandu rek amaana li ñu bëgg a defal yëpp nañ ko defal ni ki noonu it ñu ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla ci taxawal justice képp ku am dëgg ak foo mën a bokk ak noo man a toll ñu fexe nga jot li nga xam ne moom mooy sa dëgg loolu wax dëgg yàlla seetlu nañ ko mu nekk ay yëngataay yoo xam yu am solo la ni ki noonu gis nañ ñuy góorgóorlu bu baax pour taxawal la ñuy tuddee adaala ijtimaaiya muy justice sociale fexe li nga xam ne nit ñoo ko moom ci ay mum mum talaataat ci ay bien nit ñi ku ci nekk rek la nga xam ne mooy sa àq la jot ci li ñëpp bokk ñëpp jot ci waaye jub jubal jubbanti li nga xam ne moo ci dëkk bi def li nga xam ne tegul ci dëkk nag mooy li nga xam ne sos nañ ko ci ay euh, ak ay direction des affaires religieuses boo xam ni état bi teg na ko en place c'est-à-dire nga xam ne ñoo jàng diine pour nag fas yéene jiite li nga xam ne mooy intérêt askan wi te jël diina dugal ko ci ni réew mi di doxee li ñu tuddee laïcité yàgg koo doon ci li fi nekkoon moo ñoom it mbir yi moom ay concept la rek kenn ku nekk day ñëw am benn concept ñu am benn consensus di ko doxal kon ñoom am nañu droit ñëw ni lii nii lañ ko déggee te kenn du ko bañal alhamdulilah rabbil alamin taxaw nañ ci yàlla yàlla dimbali leen ba li nga xam ni am nañu yéene def ko ci réew mi ci jubal ci développé. ci lépp loo xam ne naataange la li ñëpp bokk ñëpp mën cee jox dégg seen bopp bu baax bu ko defee askan bi ñoo leen ci war a jàppale bu baax ci yéwénoo ci jéem a changé fikir yi yàgg waaye ci taxaw ci li nga xam ne mooy ci wax ak ci jëf ak ci àtte ak di fàgg loo xam ne lu ragal la ak di jox mbokk di lu baax teral lu bon di dimbalante ci baax ak ragal yàlla waaye rawatina la mbokk jullit yi li ñuy wax wa inna islaaha al inxiraafa mooy jëriñ dérapage yi nga xam ne dañ koy gis nit ñi di ko def ci wàllu pas-pas loolu moom feek rek la mujj ci ab société la yëpp nii ni ma ko waxee ci ñi fi jaar yàlla doo leen dugal yu mel noonu rek lañ doon def te yu mel noonu ñu ngi jiitu ba tey kon njëkk a xeex loolu loolu ñu daan awlawiyaat wa min awjadi wa ashaddi ad-daruura kon mbokk jullit yi ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala bis bii nga xam ne mooy bis Tabaski yàlla ñu ko delloo si ay at yu bare bare yal nañu yàlla nangu jaamu yàlla gi yàlla doole ñu sutura defal ñu xéewal yàlla sàmm ñu sàmm njaboot ñu ngi leen di baalu àq yi ñëpp di leen baal àq waaye ñuy fàttali ko seen bopp jub li nga xam ni da nga fële ci Palestine ñu doon lool ay noonu lislaam jekku leen ànd ak ñoom ndeysaan jëm bi ma déggee ibn Hassan gars yi taxaw ñu ni yéen a ngi di taxaw arafa di ñaan waaye ñu ni ñu ni fi sabilillah représenté leen bi yéen kon yéen bu leen ñu fàtte ci ñaan nga xam ne ñoom li soxla sax dogu nañ dogu boo xam ne ku leen fekk si ak ku leen fekk si mën a njaban ñun nag li ñu man xëy na a ñaanal leen ñaan boobu nag buñ ci gàttañ i ko desal ginnaaw ndax ñaan lu mu mënul amul allahumma taqabbal minna iidana wa adahina عند الإسلام والمسلمين وعند الشرك والمشركين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم امنا في اوطاننا واصلح لنا ائمتنا وولاه امورنا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انا نعوذ بك من ذات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغث العباد والبلاد اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار